Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu d'accord Donc, yi a 78 121 14 13. voilà nous ñu 77 809. 47 95 xam nga wax nga ci kalima latif lépp ba léegi ñu ngi ci turu yàlla yeeg wax nga léegi tamit ci kalimatu laa ilaha ak secret bi nga ci joxe léegi mais astaghfirullah waaw astaghfirullah moom yàgg naa di ko wax mooy benn médicament boo xam ni benn médicament la boo xamante ni nii c'est universel ah bon waaw pour ñëpp pour ñëpp lépp lay faj am na ku ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko damaa bëgg doom mune ne ko xaleyka bi istighfar dama bëgg xam-xam mune ne ko xaleyka bi istighfar dama bëgg alal mune ne ko xaleyka bi istighfar dama bëgg yàlla jéggal ma sama bakkar mune ne ko xaleyka bi istighfar fa xultu istaghfiru rabbakum innahu kana afaaran yursilu sama alaykum midran wa yumditkum bi amwalin wa banina way nak way jaxal jannatan way jëlakum anharan nga xamante day maye àjjana astaxfirullah day tax nit dem àjjana astaxfirullah day tax dex ya nekk àjjana nga mën ci mos dexi sàngara dexi lemi dexi meew yi dexi lépp lu fa nekk ci anhaar yooyu waaw xam nga alxuraan fi fi ne astaghfirullah daa composé juróom benni turi yàlla yi ñoo ko composé mooy allahu ahad kaafi fataahu raza hanniyu soo ko calculé mooy jàpp 1947 allahu 66 la ahadu 13 la kaafi 111 la razaax 308 la fataax 489 an niyu 960 lii mooy astaghfirullah léegi nag bu fa la neexee fi ne mën ngay def comme nii nga def 66 astaghfirullah jàng fa xultu istaghfiru rabbakum innahu kaana faaran ba ci aaya yi nga jàng ko juróom-ñaari yoon dellu def astaghfirullah 13 jàng aaya bi juróom-ñaari yoon def astaghfirullah 111 jàng aaya bi juróom-ñaari yoon dégg nga astaghfirullah 308 jàng aaya bi juróom-ñaari yoon dem astaghfirullah 489 jaay jàng aaya bi juróom-ñaari yoon delluwaat def astaghfirullah 960 jàng aaya bi juróom-ñaari yoon mhm. di ko saxal di ko def insha allah rabbi xaalis dana la yomb njaboot dana la yomb te sunu borom dana lay jéggal say bakkar ci ci lepp ci ci kalimatu ci ci astaghfirullah eh, ci lay do mhm. nga li nga xamanteni ni astaghfirullah mom amul lu melni ni ala kulli ali dede manam nit ki da tilim moy sabu bi nga xamanteni mom boko xasse ba am nangu la fete rek nangoo fete gi nak moy nangu di wax astaghfirullah lu bari mhm. waye fi ne da bari ay lim fine ne astaghfirullah xam nga xaala rajulaani ga ca suratu maida mhm. fi ne boo calculer aaya bi ba fi aaya bi jeexee 7788 lay jàpp mooy ñeenti istixfaar 7788 hmm? mhm. lim la ci istixfaar boo xamante ni képp ku ko saxal ñeent fukki guddi da nga ubbeeku 7788 ñaari wit euh, ak ñaari set ak ñaari wit boo ko boolee di ko def ci astaghfirullah mënoo fexe ba doo doo doo ubbeeku bu dee baatu maxfiratu boo ko calculé xam nga lu mu jàpp. mooy firi njëgal njëgal 1225 la jàpp. 1225 moo jàpp euh, fiddatu xaalis euh, multiplié par 7. 175 mhm. boo ko multiplié par 7 moo jàpp 1225 1225 moo jàpp maxfiratu kon léegi képp ku yàlla jéggal rek may la wërsëg. waaw bu la nangulee rek. waaw maxfiratu yàlla sa wax na ko bu ngeen bu leen yàlla jéggalee. waaw mu wàccee taw yi mhm. wàccee waaw. Mhm. moo tax moo tax moo tax moo tax moo tax euh, moo tax loolu ñuy wax nii muy muy muy muy muy istixfaar am njëriñ. Mhm. waaw léegi nag yàlla nag doon na wax yonent bi sallallahu alayhi wa ni ko. te sax istaf ni ko yàlla waxee ci alxuraan sax fi'lu amrin la daf ñu koo digal. waaw waaw fi'lu amrin istaghfiru la jéggalu leen. léegi nag wax na ko yonent bi ni ko ñii ngay gis nii jullit yi duma leen mbugal mukk li feeg ñi ngi wax la mhm. li feeg yaa ngi ci seen biir. Mhm. duma leen mbugal waaye boo fi jógee duma leen mbugal mukk lu fek ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi sax ci di wax astaghfirullah waaw kon nak kon jambi euh baxna ci muy tuub wala est ce que limi comme ni ko parce que limi dafa am solo. Mhm. est ce que limi lu way def baxna wala fokk mu dem mu mu adat yi nga wax. de wa manam fi ne ni nit ki man na jël istighfar wala da ngay mbeuk di dem rek. déedéet déedéet mbeuk mbeuk di dem baxna waye xam fi nga jëmit da cee am solo. Mm. manam moy astaghfirullah nga jëlal ko ay lim bu la nexé ngay def 308 astaghfirullah mu japp nga ci nga ci nga ci sax waat 66 bu la neexee nga jël ko 66 bu la neexee nga jël ko 19 bu la neexee nga jël ko 21 111 111 yooyu yëpp dafa dafa dafa am solo te laa nit ki war na saa suy demee ba desu dara lu dul tëdd donte téeméeri yoon la mu jéggalu ko borom waaw surtout waaw surtout donte téeméeri yoon la bala ngaa tëdd man ndax booy booy tëdd di nga jël sa temps lal sa lal. Mhm. xeeñal cuuraay. Mhm. tal te astafurla yeexul. waaw waaye nag nit ñi di moytu di wax astafurla astafurla mooy maa ngi daw yàlla. Mhm. waaye astaghfirullah mooy maa ngi jégalu yàlla. xaas bi waaw xam nga prononciation bi. waaye ñu bari nag astaghfirullah astaghfirullah kii daw yàlla moom day da koy daw rek. koy gën a sori waaw da koy gën a sori. waaye di jégalu yàlla di ko di ko tudd ci ni nga ko war a tuddee